من زنني غير خديم المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ني سيتان تي بير ريم اك تي بيتم ريو نيوغي في تي جمعه سيرن توبا شيخ الخديم جيغا خامتاني موك ردل بوبام اند اك كوميتي دورغانيزاسيون بيغا خامتاني ньо يور ماغ واتايو ماغالو توبا في تي نجارم تي سيرن مصطفى عبد الودود جيتكو ak Serigne mustapha jang mi nga xamne moy secrétaire général bi ñu lekkelo ak comité d'organisation bi nek Touba ci njitul Serigne Bassirou Abdou Khadir ak Serigne Abdoul Ahad Mbacké gayna Fatma kon nak xamna duñu def lu dut bàyyi leen ak ki nga xamantene moy Serigne mustapha Mbacké Abdoul Wudud mom mi nga xamne moy coordinateur bi nga xamantene mo nek fi ci Diourbel a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin mbokki jullit yi ni ñuy seetaan ci gox yu fasantikoo yi ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu di leen fàttali lu ñu jàpp ne fàtte wuloon ko ndax nun ak yéen ñoo ko bokkoon démb tey soog a ñëw loolu ñu leen di fàttali nag mooy bisub ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba te mu woote woon ko ci pàkkam bi ñu toog ginnaaw bi mu amee li mu am ci liggéeyal boroomam dekk si ci dëkkam bu tedd bi ñu wax albuqaatul mubarak ba def fi juroom ñenti at muy tolok 1921 ci wéru juin depo ci ak fukki fan ak juroom ben depo gi tam nak fukki fan ak juroom ñett ci safar ci atum talsachin ci la serigne touba waxe ci pakam bu tedd bi wax ne bis bi de moy sama bis kep ko xamne sama mbekté sa mbekté la. maa ngi ñaan su ñëwatee na ma ci sant la borom bi tabaaraka wa taala ci ay bernde ci durus ci xewal yu yaatoo yaatu dafa waxoon nag ne li ko dalee ci ginaar ba ci giléem lu ci waaye man ki man ginaar bu mu ko xeeb waaye ki man giléem itam bu mu ko yéem may wax ne kon comité d'organisation bi nekk njaareem lëkkaloog ba ca Touba ñoo ànd di leen woo di wax ne rek fàttali leen lu ngeen dun mos a fàtte lay doon waaye lu ci waay man rek na ko def ngir jëmbi sëriñ bi bu kenn xeeb bu kenn yéem li ñuy toftal ci wax jooju nag mooy xanaa di sant rek suñu kilifa yu tedd yu baax yi nga xam ne ñoo ñooñu yombal liggéey bii nga xam ne taxaw nañ di ko liggéeyal seen maam muy Cheikh Sidil Mokhtar mi toogee jotaayam ak jëwrinam ju baax ji Cheikh Mouhamadul Basir ak suñu kilifa yi ci toftalu yëpp. Cheikh Mamadou Bachir moom sëñ Abdoul Khadir di porte parole bi ak suñu kilifa yi ci toftalu ñu wàcc ko ba ci Cheikh Abdou moom sëriñ Cheikh ma waaye wàcc ko itam ci suñu kilifa yi bopp muy sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Akram te mu sonn lool ci bis bi ak sëriñ Modou Mbacke Abdoul Wadoud ak mboolem ñi ñu àndal ci liggéey bi ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm. kàddu yu tedd yu sell yooyu nga xamante ne moo tukkee ci sëriñ bi di ay ndénkaan yoo xamante ne mi ngi jógee ci sëriñ Touba Cheikhul Khadim duñu def luddut baye len ak serigne mustapha Dieng bu ko defé mu leralal ñu bu bisba nan lay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bis bi ni muy tëddee comme niko serigne bi waxe serigne mustapha abdul Wadoud mi nga xamé moy mooy njiit li moom itam mi ngi fatali ne bis bi nak ñu ko tek ci euh njitul cheikh Mouhamadul Mountakha mom cheikh Mouhamadul Basir fi ci ndiarem euh bis bi nak ni lay tëddee le 13 lay tàmbali. ci 23h jëm 1h du matin lan moy am Ben débat bo xamné day en direct avec les télévisions ak les radios de la place ñan ñoy def débat bi professeur mohamedou Lamine gay directeur université Gaston Berger Saint-Louis dana ci and ak ku ñuy wax Cheikh Abdou Lo di doomi di ingénieur dana and ak benen doomu ndiarem bu ñuy wax Serigne Modou Diakhaté muy magistrat dana ànd itam ak beneen doomu njaareem bu ñuy wax Serigne Amar Diop muy inspecteur de l'enseignement arabe dana ànd itam ak ku ñuy wax euh, professeur Cheikh Mbacke saw mu dëkk ci njaareem dana indi itam ak koo xam ne moom la ñuy wax Ousmane Ndiaye moom itam di jàngalekatu arabe di euh, gëstukat te dëkk ci njaareem kon débat boobu ki nga xam ne moo koy coordonné nekk modérateur bi mooy inspecteur Seydou Xuma dëkk fii ci nekk fii ci IA jurbel lan la ñuy waxtaane mouridisme source de la paix et du développement njàngaleem Serigne Touba ci murid ak ni mu yare murid yi ci jàmm ji nga xam ne ñëpp ko soxla ak développement bi nga ko soxla mi am le treize ci guddi suñu xëyee huit heures du matin ba dix heures fas nañ yéene àggale alxuraan ji nga koy ci bis bi njëkk ci safar di ko jàng ba ci bis booba lépp luy durusu xasaay itam nga xam ne tàmbali nañ ko ci bis bu njëkk bi ci safara it ñu ngi koy àggale ca diggante huit heures ak dix heures ci le quatorze. bu ñu ca jógee am na conférence bu mag buy am boo xam ne ñu ngi ciy waxtaanee njàngalem mi nga xam ne moom la wala ndigal li sëriñ bi joxe ci màggal lan mooy màggal nan lañ ko war a màggale ak lan mooy njariñu màggal ñan ñooy waxtaanee waxtaan woowu sëriñ Mbay Ngiraan di conférencier bu mag. bu dëkk ci njaareem am na itam ci ngoon gi benn conférence buy am waaye njëkk muy am tisbaar maanaam conférence wu boobu di am suba gi mi ngi jeex waxtu tisbaar ñu julli tisbaar daal di dem xéewlu dalalit nag tertu ci gan ñi nga xam ñooy jóge Touba ca biti dëkk ba lañ leen terto indi leen fiñ dal bu ñu xewloo ba noppi trois heures danañ ñëw ci biir bâche bi bu ñu dikkee am na conférence bu am solo buy am boo xamee ñi koy def ñoo di sëriñ Mbakke Abdourahman nekk ca Touba moo koy def ànd ci ak beneen professeur bu ñuy wax Ousmane Ndiaye te mu dëkk Njaareem conférence boobu ki koy modéré mooy Serigne Sam Bousso mi nga xamante ne ni moo jiite commission culturelle bi ci préparation màggalu Touba lan lañ ciy waxtaane njàngaleem Serigne Touba ci ndaw ñi ndax kenn ku nekk xam na ne jamono bii ñu toll njàng euh, ndaw ñu sox soxla nañ ku leen daggiwaat ku leen yeewaat te dara gënu cee rëy njàngaleem Serigne loolu su noppee mi ngi jeex 17h bu 17h je jotee ñu julli tàkkusaan danañ tàmbali nag cérémonie officielle bi nga xamante ne ni kilifa aada yi kilifa yi diine ji mag ñi jóge Touba ak kilifa yi jóge Touba ak njaareem danañ ci joxante ay kàddu ba 19h ñu yëkkati jataay bi ñaanal ñaanal jullit ñi ñaanal réew mi ñaanal njaboot gi ñaanal seen Sidi Mokhtar te joxante rendez-vous incha allah déwén incha allah. asalaamaaleykum wa jërëjëf. ginnaaw kàddu yu tedd yooyu nga xam ne moo tukkee ci Serigne Moustapha te mu jëm ci lépp loo xamante ne mi nga xew ci bis boobu nga xamante ne moom la ñuy amal fii ci njaareem du ñu def lu du bàyyee kàddu gi ak ki nga xamantene ne soxna yassine Diop ndax kenn ku nek xamne ne ba l'islam so so ba legi fépp fu góor gu bax nek rek so gesto di nga gis jigen ju tedd ju bax ci wetam kon dañuy baye kaddu gi ak ki nga xamantene ne soxna yassine Diop mu waxtan ak ñi nga xamantene ne mbokk jigen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yen mbokk julli di mbokk talibe yi yen soxnay murid yi ngi len di wo ci bis bile bis bi moy lan mooy waajal màggal gi bis ba bu yegsee woo nañ soxna yëpp kenn ku nekk nang ci taxaw taxawaay bu rafet ci ni ñu ko bëggee teeru gan ñi dalal gan ñi berne gan ñi jàppale nit ñi ci li nga xamante li mooy li ñuy war a teeroo gan ñi soxna Aminata Lo ak soxna maam Hawa Sakho ñoo ma yónni yebal ma pour ma war wax lii li may wax itam mooy nu jàpp ca bis ba rek liggéey ca liggéey ba jëf ca jëf ja bu nu yeggee ca bis ba na ngeen teel a xëy si na jigéen ñëpp ñëpp ñëpp fii ci njaareem ak li ko wër yëpp na ñëpp génn dem ci liggéey bi te it bu trois heures ca conférence ba na ngeen solu ba jekk sañse comme niñ leen xamee woon ñëw ca bis ba wasalaam. kon nag mbokk yi kàddu yaa ngi noonu ñoo ko déggandoo bu ko defee ñoo ngi woo àdduna bi yëpp di woowaa waa Afrique yëpp di woowaa waa Sénégal gépp rawatina nag ñi nga xamante ne ñooy doomi njaareem yi fàttewuñu itam mbokk yi nga xamante ne ñoo yor njàngum xasaayit mi fu waay man di nekk ñu ngi lay woo ci bis boobu ñu ngi ñaanal si Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg te ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.